jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen site internet Gaston Production mbokk yi tey ñëw nañ fii école de lutte Mor Fadam jël si ki nga xam mooy Eumeu Sène junior muy préparé combat am digganteeg ak Serigne Ndiaye numéro 2 dimanche la 14 mai fële ci arène nationale bu Pikine Gaston Production moo tëggu combat boobu takkusaan kooku nag dina bëri ay ndaanaan yu ci bëri gis ngeen forsa jëli nañ ko waxtaan ak moom gis ngeen Franc aussi tamit jëli nañ ko waxtaan ak moom. tey ñëw nañ ci Eumeu Sène junior incha allahu rabbi suba dañuy dem ci kenn mooy Serigne Ndiaye numéro de di ñaanal promoteur bi aussi tamit suñu papa Gaston yàlla may ko gudd fan may ko wér gu yaram ba lim yéene ci njaboot gi. ba lim yéene si làmb lépp yàlla defal ko ko parce que yaakaar naa ne moom sagu làmb la comme ni ñu koy waxee chaque jour tey ji gis ngeen jaloore jim defaat ñu dem arène nationale bu Pikine régulariser combat Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam mooy ba 30 juillet fële ca arène nationale bu Pikine di jaajëfalaat bu baax a baax Makan Bengue surtout Abdoulahan Ndiaye macha allah liggéey bi rafet na lool lool lool encore une fois ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax dañuy nuyu Baye Fall bi ko mu nuyoog mbokk internet ci liggéey bi maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di la bëggee. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur sant sama sëriñ si Mor Abdoulaye Fandara ñaan yàlla suñu borom yokki leeram te di ziar suma sëriñ si Cheikh Bintou Fall di ziar kuluhum Baye Fall di nuyu waa Ndar Fall ak waa Kawsara Fall di wax ne waxtu yu ñu toll nii waxtu ndog yi la ñu ngi ciy woo Baye Fall yëpp xam nga ñëpp ak Pastef ñëw fas bu baax a baax a baax a baax di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi di nuy suma waa Ikeri yi di nuyu waa géej Guédiawaye waa Diourbel xam nga di nuyu waa mbuur aussi di nuyu waa Gambie xam nga di nuyu ñëpp di nuyu waa Maroc aussi di nuyu suma grand Alain maa bu baax a baax. ñu nuyu aussi ambulance mi taxaw tiim ñu xam nga ñi ci des ñëpp su ma mënee lim seen tur dama koy lim te dinaa ko def incha allah ndax jaral nañ ma ko gis nga waaw yëpp yëpp ndax jaral nañ ma ko gis nga ni mu demee xam nga ñun chaque jour ñu ngi fii tal producteur di nuyu aussi borom bâtiment bi Arfan ñu ngi koy siyaar bu baax moo ñuy may courant ñuy leeru di entraîner di siyaar waa Géejawaay yëpp di nuyu waa jamono waa daaru waa jaxaay combat xaw di wax ne combat bi bu ñu yitteel la combat ñu soxla combat la bu nga xamante ni xaaruñu si kenn mais ku ñëw da ñu ciy fekk di wax ne barki Zéro Fall lamb juñ bëgg la di waxaat encore une fois jamonoy ndogu la ñu nekk waaw Baye Fall yi farlu teru yenu bool yi gëdd wuti kër mag moom mu jeex tàkk incha allah. <laughs> macha allah mbokk am na solo fi may njëkkee rek yaakaar naa ne préparation sax saa yi pare nga parce que bu ma jot naa info ci Sa sax ñu ne yéen a doon ànd di pareendoo combat bi contre Reug Reug kon yaakaar naa pour l'instant mottali moo si des. non non Sa Thiès moo pare moom bëri pare man maay préparé ba tey <laughs> man maay mottali moo la dese de. non non ba mottali man maay préparé ba tey Sa Thiès moom moo pare ñu ngi koy siyaar bu baax di ko mm. nuyu di ko ñaanal ndam di jikko aussi xam nga moom moo pare mais ñun pare ñu ngi préparé ak waa écrit bi quoi mm. di nuyu waa Guédiawaye yëpp mbër Guédiawaye yëpp nag di ñaanal ñëpp yàlla suñu borom defal leen ndam incha allah barke Cheikh Ibra xanaa àndoon ak moom muy pare waaw saa doon nañu ko jàppale sama frère la doon nañu ko jàppale contact. Mm. waaw sama frère la et puis borom baax la xam nga nice da ngeen doon ngeen mbëkkante bu baax quoi. waaw doon nañ talante rek <laughs> waaw doon nañ talante parce que moom borom kàttan la macha allah. Mm. te ndaanaan la ci bëri. Mm-hmm. xam nga genre nit di mel noonu moom. Mm. dafay neex loolu di bëri ak ñoom quoi. Mm-hmm. waaw. ok am na solo pour l'instant nii ëmb ci ñaata séance la nekk. Oh, man man deux séances rek laay def man moom deux séances rek man du ma fi nekk di ay quatre ak ay cinq man ñaar rek baax na. waaw yow entraîné ngoon entraîné tëdd. yaram dañ koy noppal de. ah yaram dañ koy noppal mais nekk fii quatre séances eh, non non ñaar rek baax na ñaar rek. mbaa mm. ñaar rek. noo koy dundee ak gi. waaw di nuyu sama soxna aussi waaw mu ngi def ndog yu baax. waaw ñu ngi koy char bu baax a baax di nuyu sama waa gaale yëpp. ñu nuyu aussi suñu président parti si la. ñu mm. nuyu waa écrit bi ku ci mel ne Barani. Mm. Mbaytin. Njaga Doole xam nga. di nuyu kii ki muy tudd nii xaritam la mbay sama doom lañ tudd. booy maa leen di siyaar Tokoro am lii sa gars yi ay grand frère lañ Diallo Pambaay Junior xam nga. Philippe sama njaago bi kii kii kii moom yàlla suñu borom moo boole mag magam la woon ba léegi tey jii xam nga dara ñaaw. non daa daw tey daa ko kenn du ko tudd tey dafa daw. daa daw tey dafa daw kenn du ko tudd tey xam nga di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñooy ñëw di seetaan si fii. Mm. gars yi dañuy ndogu ñëw toog fii di nuyu suma staff. mystique maa leen di siyaar bu baax mënu ma leen fay mm. di leen ñaanal jàmm ku ci mel ne Père Thier Ablaye Ndiaye xam nga Ali Thiam Matar Thiam Tafa Waalo xam nga Vieux Kane Lamine Touré. gaa yi bàyyiwuma kenn. Mm. barki Serapha lu ne la ñuy daj si man lu ne lu ne lu ne. di aussi di nuyu aussi Baye Mass borom café gi maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm. Mm. di nuyu suma waa koñ waa jamono ma leen di ziar bu baax a baax a baax. xam naa booy war nañ fi teew bu baax sax mais xam na affaire ni mu demee. Mm. yow yaa ñu jox heure ba pare nga faussé. voilà <laughs> am na solo tey moom yar bi man lay dal Serigne Ndiaye numéro 2 ban adversaire la. ah Serigne Ndiaye numéro 2 champion la mbër la comme mbër yi mënul weesu mbër. mënul weesu mbër. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mënul weesu mbër. mbër mooy daanu mbër mooy daan. te ma ko mun a xamal mooy. waaw yee na ko jar te am na komba waaw te am na combat capable coupable non criminel ndongo si ngay waxal de barki chèvre dañuy xeex dañuy bëre ay faxas yooyu du fa am de dalantal la ñuy def maa la ko wax lu métti la ñuy dajale ak bu soobee yàlla dañuy ñaan rek yàlla suñu borom ma ñu dem ci barki chèvre war a bi ngay waxal de amul lu mu ragal. jërëjëf musculaire la ba tey de génn ci de. <laughs> siwul naka waar sax suñu bëree pare après dina xam. dina ma jox cëru góor yàlla dina ma jox cëru mbër dina ma jox cëru champion ma nag looy am mais bu ñu bëree ba pare dina ma jox cër bi ñuy jox góor yàlla dëgg dina ma ko jox incha allah waaw na lii du combat da ciy insé lii du combat wax ma leneen loolu la wax dëggum la loolu la wax moom loolu la wax mais dama ña la man li du ma ci nekk di ci yàgg di jur dama ña man laa la wax mais bu lii du combat lii du combat la wax sa waay wax ma leneen lii du combat léegi man li ma la wax yow noo koy def bu ma demee si moom li voilà li ma la wax nii wax suñu bëree ba pare maa ngi moom bu soobee yàlla incha allah Baye Fall buñ bëree ba pare barki maam Cheikh Ibra di nga ma jox cëru góor yàlla di nga ma jox cëru Baye Fall di nga ma jox cëru mbër incha allah wuro jaaj bi ngay waxal amul lu mu ragal <laughs> barki maam Cheikh Ibra man de la 14 mai man jaaxle naa tey bu ma demee ci Franc dem ci Forza xaw ma kan moo gën a bëgg combat bi tey ñëw naa géej waaye mais ëmma mën ñëw xaar ëmma seen bi bëri woon Kalmu Ndour rek Bour Sine général Malika freiné limousine. macha allah bëreeg ndaanaan yu bëree bëri freiné Kaw Cissé mën nañoo xaar sa takkusaan googu ak ak booy Fass bii nga xam ne yaakaaru Fass la. waaw ma ci gën a woowaat waa Ndarfaal bu baax a baax a baax saa sànq yooyu. <laughs> munoo wax ba li may wax ma dagg ko di nga woo ñëpp waxal li may wax ma dagg ko waa Ndar nga xamante ni saay sang lan man Fall amu ñu dul ñooñu di leen waxaat ne Fall Serigne Ndiaye deux laay bëreel na daf may faxas. Coriace man amu lu dul Mourou Ba Djili Fall. comme ñoom niñ koy waxee maa ngi sàkku ñaan bu baax di ko dagaan di siyaar Ndar Fall gépp di siyaar Kawsara Fall gépp di siyaar kulluhum Baay Fall amul lu may ragal ci bés mi nag de mais Fall da di man awma lu dul waa Kër Cheikh Ibra falaa yem allah. waa ji nga ñëwal ci waa ji moom adversaire yi jàpp yëpp ay dictionnaire ak bu ma juum sax daan na sa grand Ndiaga Sarr. comprendre nga am am am ñu fi jaar ay Omanga moom xaw naa kii géeje waaye di ndeket. waaw xam nga làmb moom ñii day daan ñii ñii daan ñii ñii daan ñii mais képp ku mu mus a bëreel Ndiaga Sarr maa ngi ko nuyu de passage. ak Omanga ko fils de mais li ma la mën a xamal mooy barki Serigne Bamba. Mm. wuro jaaje bi lay dajeel. miin fii de miin na fii de. waaw Wuro Jaajo waaw man miin naa de. waaw ba pare miin di ñëw di dugg si yor dox di génn si gi nit ñi naan Baye Fall baa ngi nele <laughs> loo dégg de barki Zebra lool loolu de maa moom moom ragaluma loolu si biir géew arbitre ne prip man moom ñu mel ne ñaari ndox yu daje. xam nga loolu ñii lay def waaw du am ay pusoog ay ndox de ay corox yooyu dafa am de bëm ngay dégg Fall danoo pare de pour jëflanteeg yow bu baax a baax a baax te dañoo ñëw pour am ndam ñëwuñu pour ay de. waaye sa caaxaan yi nga nekkee ku lay wax ay eh, yooyu ñëwul de Fall ñun dañoo ñëw pour am ndam ñëwuñu pour ay waaye waaye de waaw. moom de ay combat yu metti la bëre donte yim daan yi mu daanu yëpp day gaaw ba muy bëree Oumanga dafa gaaw Ousmane Dir dafa gaaw Dictionnaire dafa gaaw Ndiaga Sarr dafa gaaw Zambala dafa gaaw yëpp maa ngi fa Libidoor dafa gaaw Cobra dafa gaaw. ah Ndiaga Zambala da koo daan Ndiaga Sarr da koo mu ñëw ñu bëriwaat. ah si waaw ñëw ah ñëw gat di waaw noonu la fa demee mais li ma la mën a xamal man miis naa làmb ju gaaw miis naa làmb ju ju ju yéex loolu peut-être moom na am jafe-jafe boobu ay làmb ji yàgg wala ay. Euh, ay seconde lay dóor non man nag du ma ku ñu daan ci ay seconde. xaw ma teel mu ne prib dipp. Cobra maa ko nuyu de passage di ko ñaanal yàlla suñu borom. grand champion gis nga ni mu ko def. indiwaat ko ci làmb mais Cobra dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam nga ne góor yebbu ah, waaw li nag moom ñu koy ñaanal jàmm bu baax a baax yàlla indiwaat ko ci làmb mais Serigne Ndiaye laa la waxal ñii li may bëgg def ci làmb du moom moo koy tere def dañuy ñëw man ak yow dañuy man ak moom dañuy dalante bu baax barki jéeru dañuy bëri dañuy xeex. ah di ngeen xeex yéen ñaar kon. waaw te buñ wàccee ci suuf mbapat moo xam ne même mbapat mbapatul sax. dawoo mbapat bi yow. man amul lu may taw ci combat boobu amul ñun daal liñ ci dagaan mooy ndam ñu ci torop bu baax baax di ko dagaan ñëpp ndam rek lañ ciy ñaan ci barki jéeru waaw bu dul loolu leneen raxaluñ ko ci bu dee adversaire bi jafe na. waaw bëri nañ man ak moom bëri moom wax dëgg fa yàlla moom champion la bon ndaanaan la kenn werante wu ko maa moom bëri nañ mbapat mais man gisuma ci moom lu nga xamante ni wax fa yàlla man war war na tax ma arbitre prix may daw Serigne Ndiaye wala arbitre prix may may du ci moom bëri quoi lu ma ëppale xanaa lenn te loolu suñu borom moo koy def mooy ndaam ndaama ak njool. Mm-hmm. mais amul lu may ëppale jour la am ja. mais mbapat bi ba tey leeru de bi sax maa moom duñ benn si bëree. ci bëre yéen ñaar. non non duñ benn de duñ benn ci moom kat nee na moom mën na waxul dàq bëre jàngal bëre lay wax ci yow kay. moom daa mën bay jàngalaate. Eh. a ah, lan fu lu mu mënee kër la mën. Ah, moom kay mi ngi lay seetaan waa déet yow Baye loo mën bay jàngalaate. <laughs> Ah, xam nga nii ngeen nii ngeen def yéen jékki-jékki. kii nii kii nii rek naan ay da ngay jàngalaate. bis boo fi ubbee école di sa ndigg na rëq moo na naka waar mu naan day jàngalaate ku muy jàngal waaw yow bàyyi ma waaye mu naan day jàngalaate sibul na ko waar man kenn du ma jàngal man damay ñëw di bés bi def li ma war a def dem ñibbi di nuyu sama coach yëpp gars yi ñu ngi siy jàpp bu baax a baax a baax xam ni làmb ji man maa fa bay coach barki sëriñ Bamba làmb ji ci moo far moo fa bay coach te coach yëpp la ñuy yéene ñu leen di nuyu ñoom ñëpp di leen siyaar xam nga dañuy wax turu maawa rek bu ñu waxee turu maawa wax nañ turu ñëpp hmm. mais ñun dañuy am sax ay coach xale waaw ay coach yu nga xamante ne ay jeune lañ ñëw di ñu xam nga ak yéene ñu ngi leen di siyaar ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax ñaan Sénégal jàmm yàgg fi. am na solo ñenn ci amateurs yi aussi tamit ne yaa ngi jëm ci combat bu méttee méttee xam nga man moom ba ngay mu Moussa Ndoye ba tey maa ngi seetaan say combat mais am na ñenn ñu ci amateurs yi nee nañ combat bi moom du komba quoi. waaw di wax. waaw man de loolu outsider est-ce miinu ma ko. waaw bëri na say combat waaw bëri naa fekk général Maliko ñu ne da koy dóor mu wàcc. Ibamar waaw mu bëri fekk limousine ñu ne daf may dóor ma wàcc. ma bëre fi ak Boursine ñu ne bu deful lànk mu ramassé ko ma bëre fi ak Kalmu Ndour ñu ne de Kalmu Ndour du koy wàcce wala mu jàpp ko làmb ji jeex te lépp lépp lépp champ ay champion lan maa ngi di siyaar ñoom ñëpp yàlla suñu borom bi ñu suturaal di ñu dimbali xam nga te li daan ñooñu jug fi dañu ñaan yàlla suñu borom waaw kaaw ñu ngi koy siyaar aussi tamit kaaw moom champion la mais combat boobu moom yàgg na quoi ah, ay kaaw suuste ay ay ay ay malam ñaani mm-hmm. ay seex ñang mm-hmm. xam nga ay ñoom Tigre bu Lamsaar. waaw xam nga gaa yooyu yëpp. combat bu neex bu cent mille sama gaañ la maam duñ toog duñ déggante wu. <laughs> dafa baax nag. <laughs> bu ndajoon fi man ak moom da naan déedéet <laughs> barke Rasulullaah sama gaañ la barke Rasulullaah laa mujj neex sax mu naan ma lu may wax waa Biafra ma ne ko yaa ko xam dama lijjanti ko ak ñoom. waaw non borom baax la aussi maa ngi koy ziar bu baax Tigre bilaay walaay waaw. xam nga ñun min mis mis nañ bés bu nga xamante ni dañuy ñëw si bés bi ñu def ñu ay xam nga mm. aduna lépp ñoom ak njàmbaar la quoi. te dañ koy dégager ba mu mat sëkk. làmb bu kenn moomu ko. waaw barki Serafal kenn moomu ko. am na ku ma ko waxoon te te li ma la mën a xamal mooy gis nga ndam. Hmm. képp ku yaakaar ne mi ngi sa loxo dangay nax sa bopp ndam yàlla moo ko moom. yàlla suñu borom moo ko moom te day xool jaam bi ko neex mu jox ko ko. Hmm. man damay ñaan lu ji fi ma yaakaar moom day dem ñaan lu ji fi mu yaakaar après suñu ñoom ak suñu njàmbaar moo ñuy bàyyi si biir géew bi. waaw bu maasi waari tàngeer dañ xam kuy wane ginnaaw. Hmm. waaw waaw. parce que yéen ko arrière benn pas. moom day baax wax di wax nii rek mais bokkul si góor a. moom musul arrière. waaw parce que bëggul cons. moom bëggul ko ay maas waram tàng non tapet la moo tax du xaar. Oh, mel na. ah non moom kat dane nit moom boo ko mënee jëru nga fay nekk sax di sonn. Ah. daa baax rek jàppal daan rek. Hmm, daa baax di wax rek du ko xaar kuy lay daw moo tax boo naan nii muy mel ne kuy for xaalis day sa kaw lay naaw fër lay def du ko fii fiw ay baabaaw xanaa xanaa booy bi sa école la nekkoon. kan. moom Serigne Ndiaye maa gën a xam ñu ko yor. li nga wax ni moom non bu ñëwee moom sax bu ñëwee ma tàggat ko maa gën a xam ñu ko yor Serigne Ndiaye maa gën a xam ñu ko yor de. maa gën a xam ñu ko yor Serigne Ndiaye daa bokk si gars yi ndaanaan yi. la nekk ay Fass Ndakaaru ay 1000 pour cent bi. ñoom 1000 pour cent lañ déclaré. waaw waaw ñun dañu suñu 100 pour cent. sax dàkk na waaw 1000 waaw mën na ñoom 1000 ma ñun 100 pour suñu 100 pour cent. xam nga gars la ñuy déclaré ak ay 1000 ñun ñoo ngi suñu bi waaw sang bi sang bi baax na. ok mais écrit gars yi ci sang lañ di démarré ah. waaw après gars yi yokk ñuy mille affaires yooyu noonu mille mille bëri na de. bëri na lool sax. am doole yàlla na xool yi ànd mille moom bëri na. <laughs> Amine macha allah yaakaar naa li ñu dese ci waxtaan bi bareetul. par rapport ak écrit bi mu nekk nag yaakaar naa ne écrit bu mag la nekk ay professionnels aussi tamit nekk fa. waaw écrit bu mu nekk ay écrit bu mag la ñun tamit écrit bu ñu nekk. écurie bu mag la ku ne xam na ni Mor Fadam ñu ngi koy nuyu. tuddee nañ ko jàmm. yal na yàlla suñu borom xaaree ko àjjana. lim def ci làmb. ku ne xam na Tapha Gueye aussi lim def ci làmb. mais kenn du notable leen daanaanu Mor Fadam. te suñu ay grand ñu suñ suñu gannaaw ku mel na ambulance. fifty cent xam nga saa kajoor gars yi ñëpp ñu ngi jàppale ak guy gi aussi. gars yëpp ñu ci combat bi te ñun xeebuñu leen benn yoon. ay Mbiita Ndiaye numéro de Malal de ay xamadi gaa yëpp ñu ngi suñu ginnaaw bu baax dañu taxaw. dañuy nemmeeku euh, maanaam ku xeeb sa noos. ku xeebul sa noos. kenn dàqul la noos. Ah. Euh, man li ma am. Hmm. loolu laay dugg jee marché. te bu sóoree. Ah. ma sóor kenn du ma gën a neex le ndax li ma am laa gëm. gëw ma leneen a ma gëm. macha allah mbokk yi ak suñ benn grand Tafa Ndiaye aussi tamit moom tout le temps mi ngi ñëw fii des fois dañuy pare entraînement sax def nii génn. Hmm. xam nga xam nga dañuy def nii génn dem si moom jël fa xaalisam après kon ne dem. nice <laughs> loolu yomb na de. mbër la woon. <laughs> Hmm, mbër la woon. daa kii moo ko daanoon mu bàyyi l'an 2000. <laughs> l'an 2000 moo ko daanoon mu bàyyi l'an 2000 moo ko daanoon mu baay mbaa duñ la jékku euh, mbéj. combat bi boobu kay gars yi dañ dem dañ doon dem stade. daje kii supporter ñu daan nañ Tafa Ndiaye macha allah mbokk yi mi am na solo bala ma kaa bàyyi mu tàggoo nag Khalil dama fekk benn champion boo xam ne chaque jour précipité daf ma koy déclaré muy Fadam Junior nga xam ne ndaanaan la yaakaar naa ne takkusaanam gaak suqi saaf seetaan ngeen ko mu daan ko jël bu rëy takkusaanam gaak Petit Kona aussi tamit seetaan ngeen ko takkusaanam gaak Boka aussi tamit seetaan ngeen ko. takkusaanam gaak Boy Mankagne yaakaar naa ne seetaan ngeen ko waaye takkusaan gi nga xam ci la mujjee génne muy Kaaw Cissé numéro Fadam. kaay nga jege si ma nii da ngaa xaw a kuul lool nag lool rek mooy sa problème ñëwel nii malal malal noo jege si rek malal aussi tamit mi ngi ma doon déclaré ñëwal ci côté ëmma ñëwal ci côté ëmma waaw salaamaaleykum ah. waa écrit bi ah mu doon dama doon bëgg a bàyyi lamb sax non lamb laa doon bëgg a parce que mbër mu toog say. waxal gars ñi nga daan ak ñi nga bëreel bi jege. toog say victoire ba pare mënoo am la micro bi ma ni ma daan bëri na ma dix combats def. dix victoire benn défaite. booy ah. te ñamay bàyyi yow. <laughs> waaw ay ñoom ay booga buga ondu. mu jege nii ah. bari nañ de su ma limee du fi jóg mais en tout cas daal ci li may wax moom ci gàttal ci làmb moom gars yi bu ñu ma jëlul damay bàyyi waaw. Mm. la jege ñan ñoo la war a jël sinon ngay wax du génn. ñi kay bari nañ yow kañ bu yàggul rek dégg naa nga yor fi benn avance benn mbër de te naan. <laughs> bul ragal waxal <laughs> ko laajee. waaw day am mbégte ba day estati ne mbër laaj. non du ma ko laaj. mu estati ko doy na borom xel du ko laaj parce que waru ma koo laaj parce que ma def ci làmb door defu ko. xoolal caméra li ma def si làmb dóor defu ko waaw mais essence yi dafa jot pour ñun man du ma fi nekk di jël yenn genre mbëri de essence si kaw rek. ay tonnerre Doudou Sané Doudou Sané euh, yow yaa may gis si biir làmb de ah, bàyyi xel gis nga ñu may daan wala gisoo leen ah, waaw loolu Doudou sax duñ ko jël sax instant pour l'instant nii quoi waaw mais ñun bu fekkee mën nañoo am li ñu gën a am ay tonnerre lañuy soxla waaw tonnerre ay tonnerre non baa mi ñoon sax moom la ba non du ma combat de maa ko raw jëluma ko du ma ko jël maa ngi moom du làmb kooku jox nañ fi suñu combat mu daw jëli beneen mbër fii Guédiawaye ba heure bii nii ko jox ma instant du ma du ma gës sama ginnaaw kii booy jaxaw bu Thiès bi mu mujjee daan rakku Baye Mandione Baye Mandione junior man xanaa sax booy jaxaw mooy kan xanaa ay tafaaleel sax affaire yooyu noon waaw neex na ay tafaaleel ñoo ñoon samay adversaire lañ. ñooñu bëgg naa leen. instant yi daal man dafa jot ci làmb ma génn man damaa sonn ci kii. boo si munee jàpp tamit nga jàpp si quoi. macha man kay lii laa man commentaire yi dinañ la wax. nga jàpp si war a ah. bisimilah am na solo acca ëm baal ma jox la nga tàggoo. xam naa kii moom mag magam moo ñu daan tëgal Bambey. ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di wax ne li ñuy wax moom ñu ngi koy lancer liiru jaan di ko wax waxal gars yi ñu fay bor bi jot na. Ah, làmb ji làmb jii daa nekk làmb ji soxla. Hmm. waaw dafa war a dem quoi war na dépassé fu mu nekk nii. ku daan général Malika daan limousine ak ñaari booy yi mujjee di di la am nga combat bu rëy yow xalaatul la sax ñu ngi woo waa Caay Jaay waa Njaga Ñaaw waa Góoru di wax sëñ Modou Lo dinañ ñëw xaar ñu ñu ngi woo nag waa Géejawaay ñëpp liru jaan bor bi naka gaay fay yow xam nga man xam naa wasalaam. na solo Eh, dañuy balaa balaa faaw nga taril ñu benn saar loolu mbër yëpp dañ koy def Baye Fall de war nañoo jàng. Baye Fall dañuy jàng kay. Eh, man nga inaan sa naaf laylatul xadr. wa maa adraaka maa laylatul xadr. ayca bisimilah. boobu noonu waaw dafa neex saar bu neex nga taril. waaw waxal ma boobu waaw xarki rasulullah bisimilah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. qul allahu nu <laughs> waaw Baye Fall da wax inaan sal naa fi leen te xadari non non saa euh, tey day lekk temps bi non non da da da àgga dafa kii dafa kii dafa guddi dafa guddi waaw dafa guddi yooyu noonu mooy loolu yabuñu ko de fii lay ta xadari gars yi yabuñu ko ma dara ma ta kii dafa neex kii dafa neex napp de mi ngi may wax waxi mbër man li ma ko tari loolu dafa neex yow ab dogal say waxal nii de kii doo tari li ma la tari la <laughs> kii ñu wax ci bu war moo kii dafa neex rek xam nga li li ñu ngi ci jàppandaw li dañuy woo waa Diourbel ku ci mel ne ministre Dame Diop ñu ngi koy woo bu baax si combat bi xam nga di woo aussi Pam Modou Fall Assane Sylla bonne volonté nekk autorités yi nekk Diourbel yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp soo gis Sylla xam nga moom suma frère la ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ñëpp ñu wax ñu jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax bu dee waa Géejawaay Mor Waree xama booy du ngeen noppi yéen si c'est normal c'est normal parce que ay nit lañ c'est normal ñu nekk suñu ay nopp yi parce que suñu ay rakk lañ te ñun ay nit lañ te nit matul waaw kenn kenn parfait wul. Eh, non parfait être humain kenn parfait wul barki Serigne Bamba kenn parfait wul ñun ñëpp xam dañuy juum c'est normal ngeen nekk sama nopp di ma fàttali gars yi may wax ñëpp xam di di woo waa Géejawaay bu baax a baax a baax a di woo man fi may ñi may toogal bari kafe ga karaf. ak ouvrier yi waa ESAT xam nga ak waa tali géej gi xam nga tôlier yi mécanicien yi bàyyiwuma électricien yi bàyyiwuma kenn même ay maçon yi sax gaa yëpp nañ teew xam nga borom sareet yi aussi Massa Ndiarème xam nga Paku Baye musa xam nga magasin Mbène Diop matt ma lu yàgg laa lay wax ni Pambay aussi dafa dafa dof Pambay dafa dof Pambay dafa dof maa ngi koy nuyu aussi moom. non kii Pambay 2 ak Pambay tëggkat sax du benn Pambay 2 maa ngi siyaar bu baax mon frère mon camarade de guerre maa ngi lay siyaar bu baax mon frère moom du ñu réeroo di nuyu aussi suma waa équipe yi ñëpp maa ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax may wax ne sama sama sama sama boy yi nga xamante ni ñoo bokk koñ fii ay Abdoulaat ay Amul Taal dama dama dama pan téléphone fan yëpp kii mu may mbalasan gunóor laa yoroon mm. benn boobu ñu wax Amadou Koundoul borom Ohio Cincinnati moo yëkkati téléphone bu seer jox ma ko xam nga mu jaar ji loxo Abdoulaat ma koy nuyu bu baax ak copain yëpp ay ñoom Ousin ay ñoom Ouzin. am am. waaw xam nga boo yëpp ma leen di siyaar Malick Gakou ay dara ñoom ñëpp nañ si jàpp bu baax a baax a baax. di wax waaw Pam Mama Pam Mama kooku suñu grand aussi moom tamit moom xam nga frère mbër yëpp la. Serigne Ndiaye frère am la man frère am la xam nga ñëpp ñëpp ñëpp. mais digg-géew ñun ñoo fay des ñun ñoo fay nekk. di woo waa Diourbel bu baax waa Mbour. di wax ne man damay sëtu sangaay ak ngoro ngeen di woo waa Mbour bu baax a baax a baax a baax Kaba. andaw maa ngi koy woo ci combat bi moom ñoo bokk Jurbel xam nga Racine Talla ñëpp bàyyiwuma kenn combat bi dañu bëgg kaar yi taxaw fii fees si dell xam nga may nuyu suma staff bu baax a baax a baax di nuyu géejawaay bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp wax di wax ne su ma limee damay juum di siyaar Fallou Sikori aussi moom suma rakk la suma xarit la xam nga moom tout le temps ah, xam nga xam nga xam nga tout le temps mu ngi may mu ngi may soñ ci combat bi ma koy siyaar di nuyu aussi suma père père xam nga père Thier moom it ku mën a sonn si man la. xam nga ak suma frère yi nga xamante ni ñoo nekk Baxdaad ñi ñu ngi waaj bu baax a baax a baax a baax. di nuyu waa Diourbel Kër Seex xam nga di nuyu ki nga xamante ni kenn la ci man muy grand Etienne Ngom nga xamante ni moo gérer lambu Diourbel. xam nga di nuyu di woo waa Diourbel yëpp ci combat bi rawatina mbëri Diourbel yi ma xam nga may wax tur bu ma tuddee Tanor rek tudd naa des ñëpp. xam nga. di nuyu aussi suma waa koñ waa yi maa leen di siyaar bu baax di nuyu grand Jibi fay xam nga Balla Faye Ablaye Ndiaye xam nga suma grand frère maa leen di siyaar bu baax a baax di nuyu suma soxna aussi tamit di nuyu suma njaboot di leen ñaanal jàmm di ñaanal Sénégal jàmm di wax na yàlla nañu woor ci jàmm di wax na Baye Fall waaw jóge kër Sèye rek yenu ndab ji xëtt rek jaar ci mbuur mi. aw moom noonu rek dugg kër mag moom waaw mu leer naññ lu bool bi gën a diis gën ñoo arrangé chèvre rek donc lu mu amul bëgguñu barki maam chèvre. <laughs> macha allah Baye Fall baa ngi noonu moom lan dalaloon tey mbokk di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production jërëjëf. bu ñu sifflé dañuy jël lu ñu moom dem jël franc day man. jël franc de pression ci Forza.